waa asalaamaaleykum mbokk internet di Diégo Parle Foot ah, nuyu naa leen ziar leen ah, di wax ñi soog a bees seen bi nañu ñëw abonné activer cloche de notification bi tey aimé vidéo yi te di ko partager te ngeen di ñëw ci commentaire yi di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi tey dañuy ñëw wax ci ki nga xamante ni mooy Sofiane Diop Sofiane Diop bu AS Monaco le franco sénégalais ak marocain moom mi nga xamante ne temps yëpp ñu ngi gis ci presse bi surtout ci réseaux sociaux yi ñu naan euh, jël na décision am pour cent rejoindre fi nga xamante ne mooy sélection bu Maroc ma defoon ci vidéo wax leen que ne euh, loolu noonu ay fausse information la wax leen que ne presse bu marocain bi yàgg nañoo def noonu ngir. Euh, sénégalais yi jóg di ci wax ak yooyu noonu ngir bi ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi mais di leen rassurer pour rassurer leen xamal leen ne Sofiane Diop jëlagul benn décision ci avenir en sélection donc ñun dañuy wax ci moom euh, dañoo gis que ne Wissam Ben Yedder muy capitaine bu Monaco waxoon na ci moom waxoon. ci moom yu rafet rafet wax ci ay potentialité yi mu am wax ci qualité yi nga xamante ne am na ko euh, Wissam Ben Yedder nag ci benn conférence de presse dañ ko laaj euh, yan euh, qualité nga yi nga xamante ne mooy Sofiane Diop ak âge bi nga xamante ne actuellement am na ko Wissam Ben Yedder wax que ne Sofiane Diop c'est un très bon joueur ne joueur la boo xamante ne bu baax la man na dribbler techniquement il est exceptionnel mu wax que ne Sofiane Diop joueur la boo xamante ne am na maturité bu doy sëkk ci âge bi nga xamante ne am na ko mu wax que ne joueur la boo xamante ne capable na def lu ne capable na joxe ay passes décisives dans n'importe quelle position capable na dugal euh, ay but exceptionnel mu ne joueur la boo xamante ne day def effort offensif ak défensif nee na maturité bi nekk ci moom il est exceptionnel moom Soufiane Sofiane Diop te fii avenir yu ndaw gis na que ne joueur bi dina doon joueur classe mondiale ñëpp dinañ ko coow ndaxte gis na potentiel bi nga xamante ne nekk na ci moom ak âge bi nga xamante ne Soufiane Diop amna ko Wissam Ben Yedder bu ko waxe rek ñu xawara xamne lolu deug la ndaxte xam na bu baax joueur bi ndaxte bokk nañ joué fi nga xamantene moy Monaco te et puis Sofiane Diop joueur bo xamantene techniquement il est au-dessus de la moyenne mom mi nga xamantene amna am nañ dina ma sa ñëw ci équipe nationale bu Sénégal te ñëpp ñu ngi koy xaar inshallah kon mbokk yi loolu laa andi lolu dina wax ko ne de vous abonner jaa ngeen